Café Presse, Café Courant. yi ak lu ñu xëyee Chérif dañ koy dooree ak l'observateur à la une. Euh, li askan wi doon xaar muy wàññi njëgu luwaas. muy une excellente nouvelle en avant mars luwaas bi wàññi wàññi nañ ko fii ci Sénégal région bu nekkoon dana am commission ngir ñu xool naka la ni respecter dispositif yi nga xamante ni kon moom moo jëm ci régulation boobee waaye texte yi adopté nañ ko démb. mu nekkoon entrée en vigueur lu effective la euh, l'engagement bi nga xamante ni ferme kii di Momar Ndao moom moo jiite kon commission. Euh, nationale jëm rek kon ci régulation euh, boobee loyer moom mi di euh, Momar Ndao ñu ñëwaat également ci passation de service muy ki nga xamante rek benn inspecteur la nekk ci inspection générale Euh, fële ca ministère euh, de la justice rek moom igage bi daal ñëw na ci révélation yu bees yoo xamante ni euh, baaxum moom mi nga xamante ni moom mooy procureur général ci cour d'appel dañ ne woon ci atum 2006 dañ ko doon tudd ci mbirum corruption nee na moom dara am ci dén ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo yewi askan wi jafe-jafe am na fa ba mu tasaarooti ndax am na ñeneen ñoo xamante daal ay fronde la dugg ci wàll woowu rek créer beneen coalition tuddee ko yewi Sénégal muy kon am nañ tamit ay attaques yoo xam ne def nañ ko Ousmane Sonko ak kii di Khalifa Khalifa Sall ci jamono jooju ki nga xamante ni kon mooy Azoura Fall deuxième mandat de dépôt démb kon rek luñ ko yóbbuwaat ca Ndungu Siin ginnaaw kon ba mu fi amee sax ay jafe-jafe ci wàllu yoon ñu ñëw ci na bu jóob mi nga xamante ni barki dem Fatim moo nekkoon sa invité fii mm-hmm. nekkoon fecc kat ci groupe Touré Kunda mm-hmm. wéy rek ci hommage bi jëm ci Ismaïla Touré moom nag am na ay confidence yoo xamante ni def na ko suñu naataangoo yu vateur yi muy kàddu yu mujj weccante ak way dawul bi men tamit euh, nim rek euh, tuubee ba daal di ñëw rek ci li nga xamante ni kon moom mooy diine l'islam et puis Sa Thiès ak rëg-rëg juróomi fen la ci weeru mars démb nag ñoom ñaar def nañ seen face to face bu mujj aywa ñu wax ci wàllum fiscalité mm-hmm. euh, ak enquête muy un mal endémique la ko daal di tudde rek li nemmeeku fii ci Sénégal daal li waroon a dugg ci gafakaak impôt domaine moom bariwut li ko waral mooy entreprise surtout mbiram multinationale ñoom li ñu fay moo gën a néew foofu li particulier yi di fay ba tax na am na ay borom xam-xam yoo xamante wax nañ ko muy Elimane Pouye nekk inspecteur des impôts ba ci expert bi di docteur Dieye moom it ci wàllu fiscalité et puis hôpital Sédhiou Macky na ko. aywa ñu dem euh, ak le quotidien moom it xëy na ak euh, euh, président Macky Sall. ca tournée économique ba profité na dalal tax daanaka ñu ñàkk euh, ci élection yi locales yi ak yi nga xamante surtout Euh, législative yi kon ba tax na rek moom Macky Sall kon mi ngi yedd les responsables politiques nee na loolu bu ko defee day porter préjudice seen coalition boobu et puis IGAJ muy inspection générale euh, des affaires judiciaires gis nga ko ñoom it de l' administration de la justice plutôt ñëw nañ ci li nga xamante ni mooy Ibrahima Bakhoum nouveau procureur général ci cour d' appel ak euh, lan ko fi doon jiiñ daal nee nañ dara amu ci banque centrale wàññi na li nga xamante ni mooy taux directeur ci wàllu koppar et moom moo fiy teewal banque mondiale fii ci Sénégal Momar Ndao mooy président bi jiite rek yooyu. et puis centenaire euh, Sembène ak FESPACO. voilà FESPACO bi. Mhm. Euh, moom it muy ko am solo boo gis nga ko euh, hommage la buñ koy rendre fële nga xamante ni kon moom mooy ci Burkina Faso. l'année des aînés lañ ko tuddee ñu yem ci le soleil. grand bond en avant de Sédhiou jëm ci hôpital Amadou Tidiane Ba moom mi nga xamante ne nekkoon na fi ministre nekkoon fi ancien maire bu Sédhiou yàlla def kon mu daal di dëdd moom lañ bàyyilee boobu hôpital bu président Macky Sall doon inauguré kon muy instruction boo xamante ni gis nga ko rek inauguré nañ ko dem infrastructure bu mag la ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy milliards yeen fa daal di dikk ci boobee région et démb aussi hommage bi Sénégal daal dina àndal ñetti soldats yi nga xamante ni kon ñoom ñoo daanu fële ca Mali. ñu ñëw ci libération moom mbiram euh, escroquerie la euh, ci euh, benn vidéo lañ ne daal boo xam ne amul diggante Sonko la ak Adji Sarr. waaw bu dossier ba léegi ñu ci weeru mars te ku ne mars xel dem ca li fi indi woon fitna fii ci Sénégal te dossier bi bokk na ci Doro Gueye mi tudd nañ ko ci Abdou Nguer bi nga xamante ni muy CODAS kuréel goo xamante tamit nee na rek dan fee nekk ngir défendre gu mel ni Adji Sarr ba ci sax Sidi dàkkantale Sidi Ahmed Mbaye bi ni dàkkantale le transporteur kon ñoom ñoo nekk au centre de ce scandale péripéties yeeg dossiers yi nga xamante ni kon jëm na ci boobee dossier journal bi daal ci ñëwaat ñi ngi ko doon wax sànq Cheikh Tidiane Lam mi nga xamante mooy inspecteur général de l' de la justice kon nee na IGAJ boobu di inspection boobu musul épingler Ibrahima Bakhoum kon pour des faits liés à la corruption Bakhoum nag ku xam na ni kon léegi moom mooy procureur général fële ci cour doon tudd rek ci mbiram la justice ci atum am ci euh, buñ sukkandikoo journal bi dafa am ay confusion yu bëri yoo xamante ni ci boobee dossier moom la euh, magistrat bi daal di wax et puis tamit RDS ak càcc am na fa ba euh, journal nee gendarmerie mu ngay gëstu la mel et puis prix bi tamit wàññeeku na commission beeg caution beeg agence li war a soppeeku yéenekaay bi daal dina ci ñëwaat et puis bi jëm ci BAD jëm ci perspective macroéconomique yéenekaay bi def na ci taxaw seen moom mooy njëg yi milliards yu subvention yi servirul dara le coût de la vie Macky Sall kon solution contre la vie chère ab sant laaj la boo xamante ni yéenekaay bi mi ngi koy laaj rek moom Macky Sall tamit ñëw na rek ci tension politique fii ci Sénégal si tournure procès ba dàq doon ko ba fukki fan ak juróom ci weeru mars. aywa ñu ñëw ci euh, Walf Quotidien mu xëyee ak euh, euh, PSD. PSD rek gis nga ko rek mu ngi doon kon muy programme spécial de désenclavement bi ni amal fii ci Sénégal moom daal jàpp na ni quatre vingt dix milliards de controverse Bougane moom dafa soupçonné rek ay euh, njuuj njaaj ak i tappale ba tax na mu joxoon ci baaraam tuuma ministre bi ñu dénk wàllu sax di Mansour Faye ministre des transports ak infrastructure ministère bi tamit euh, nee na euh, bi ak gis nga ko état bi yëpp ci wàllu validation daal jaar na yoon daal ci wàllu procédure ak respecte li nga xamante kon moom mooy transparence di ñëwaat également ci li nga xamante rek opposition déjà en campagne gars yi daal ñi ngi ci terrain bi di doxal li nga xamante ne rek moom la ñu ñoom. ñu ñëw ak euh, les échos mu xëyee ak Karim ak euh, président Macky Sall. waaw moom mi nga xamante tamit ñu jot nañ ne dina nekk euh, ci candidat yi yéen ngi doon wax démb ay cas am participé wala dina ci bokk am déet lu ci wér de woon mooy Karim moom am na oto yoo xamante ne nan mu nga jóge fële ca Qatar mi ngi ci port autonome bu Ndakaaru rek muy véhicule yoo xam ne en question actuellement. Euh, entreposé na leen ci boobee port Karim Wade moom moo leen Macky Sall moom nee na am na déception ci département yi nga xamante ne surtout ñu nekk ci Sédhiou ba muy def tournée économique ndax sur le plan politique daal euh, je pouvais pas imaginer une perte à Goudomp euh, tout comme à Sédhiou nee na surprise la parce que bu ñu demee ba waaye est que naan ñoom ay cohabitation yu ni mel sax ñaari département yi lan leen jox moom moo tax et puis processus tournée bi soxna le 15 mars plus précisément ñu ñëw ci euh, euh, bés bi le jour moom mu dellu siwaat ci la xewoon mars euh, euh, ñu ne euh, bakkan yi ca desoon ba léegi amaguñ coupable fukk ak ñeent la moo tax on fait le mot dafa mel daal nit ñi ñi ngi fàtt yu ni mel ba tax na am na inquiétude bu am it ci procès bi nga xamante ni fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dañ ko renvoyé woon ñu nar ko ca amal am na nag mbetteel tamit soxna Mariam Faye ma nga woon kër Idrissa Seck hmm. Momar Ndaw moom moo jiite commission régulation secteur loyer bi modernisation jëm ci transport public rek gis nga ko ci deux milliards ñetti jàmbaar yi. Mm-hmm. démb delloo nañ leen dugal. ñu ñëw ci euh, las mi xëyee ak euh, Antoine Félix Diome. ministre de l' intérieur jëm kon ci élection présidentielle yu atum deux mille vingt quatre réforme processus électoral kon apaisé bëgg nañ daal en tout cas yéen ji mooy naka leen def rek boobee processus ñu daal di koy ñoŋal su ko defee. dal mën a am ci fii ci Sénégal ndax lii indi fitna bokk na ci kon processus électoral boo xamante ni amul benn consensus si Tondour devant difficile ne dafa feebar démb nag wax na ko ante procès ba dañ koo dàq ba 15 mars. aywa euh, yi baisse du loyer pardon. waaw chiffre yi cible yi ak tamit les exclus mu mel ni euh, baisse loyer boobu daal 15 pour cent entre 0 ba 300 000 francs bu dee loolu ngay fay wàññil noonu la kon 15 pour cent 10 pour cent yi wàññil noonu la ko bu dee fay nga diggante 300 000 500 000 bu dee nag kon ëpp na 500 muy sa classe gi moom 5 euh, pour cent kon loolu leen wàññil soxna Fatou ñëw Macky Sall ni mu waxtaan ak responsable politique yi nekk fële ca Sédhiou Pape Alé Niang doon ko fee bloqué ndax dafa bëggoon a dem ci tugal nee na faju ji ah, check-up la doon def ci wàllu santé wante juge bi da ko lankal Maodo Malick Mbaye moom it ma ngay tonton rek Idrissa Seck jëm ci wàllu politique fële ca Thiès. su xëyee ak Bougane. waaw Bougane a ngi nii moom it gis nga rek mooy ay bomb daal la laal gi buñ sukkandikoo journal bi ah, Macky Sall na ci dix ans yi deux cent quatre-vingt-dix milliards à Sédhiou alors que nee na budget ministre boo xamante ne gis nga ko ndax ci ay chapiteaux yu xel comme bâche lan lañ doon dalal loolu nag moom yéem na ki nga xamante ni kon moom moo jiite gëm sa bopp Sénégal na ko euh, jëm ci li nga xamante mooy programme désenclavement yi muy ay dëgg yoo xamante ni kon Bougane daan na koy def et puis tamit ñëw ni mooy expert financier bi daan engagé tribunal du commerce jëm ci jafe-jafe bi amoon diggante CICES ak CISCOM euh, bi nga xamante kon Cheikh Yérim Seck moo ko moom ñoom ñaar nag réeroo am na seen biir ba tribunal du commerce daal mi ngi koy koy atte kon CICES euh, nag gis nga ko la Cheikh Yérim Seck na la jox cent euh, de francs CFA l' expert désigné par le tribunal kon mbir maa ngi noonu ci yenn kaay bi. aywa ñu dem ci le témoin. li ñu daal di rek ñëwaat ci pont bu Marsassoum ñu daal koy rek euh, bàyyere kii di Famara Ibrahima Sagna ñu koy dàkkantale kon Big Fam muy pont boo xamante ni. Mm-hmm. entre gis nga ko rek camp politique et génération. mais rek kon ñëw na ci immortalisé nañ ko nag moom mi nga xamante économique sociale environnementale ak ndombo tànk yu bëri ci jamonoy euh, législature euh, donc face au défi de rupture rupture nag waxoon nañ ko mel def mel ni amul ba tax na am na ay anciens parlementaires yu ci jox seen xalaat muy Aline Souaré Hélène Tine ba ci Cheikh Omar Sy ñoom ñëpp daal kon joxe nañ seen gis-gis lan moo tax boobee assemblée nationale mënu dem et ay chiffres yoo xamante xamante ni ñii di waa protection civile def nañ ko intervention ci atum mu mel kon brigade nationale des sapeurs pompiers ñoo ëpp kon liñ def ci wàll woowu contre kon ci atum deux ak euh, record. waaw muy match boo xamante ñi ngi koy xaar ci kanam ak quatorze heures GMT quart de finale diggante Sénégal la ak Bénin jëm ci CAN gone yi nga xamante kon Malick Daaf moom moo leen di entraîné nee na def rek gis nga ko du daal maanaam on va pas dormi kon sur nos lauriers su ko defee ñu mën a gagné et puis tamit euh, coupe du roi fële ci Espagne demi-finale aller Real Madrid kon euh, troisième classico boo xamante pour une finale jëm rek ci ñaari dëkk muy Real kon ak Barça Sadio Mané gis nga ko tamit moom am na loo xamante ni rek euh, wax na ko avant PSG. ak euh, ki euh, di Bayern muy semaine prochaine kon ñoom war nañoo daje et puis tamit euh, le meilleur excentré des années 2000 Henri Camara ou Ismaïla Sarr laaj la boo xamante samp nañ ko et puis au centre de la polémique dafa mel tam gars yi bàyyeegoon ba léegi fatu sëñ Aliou Cissé mi. ay confession yoo xamante ni def na ko ginnaaw bi mu toogee lu ëpp ñetti weer yu mu footballut muy blessure bi mondial bi mu raté trois mois de galère kon confession de la coupe du monde maanaam tristesse bi mu amoon moom wante tamit euh, dem na rek euh, ba plaisir Bundesliga nam fay footballé ak li ko Cristiano Ronaldo kon euh, ci li nga xamante kon bi mu demee fële ca Bayern contre PSG nous devons moom la daal wax moom mi nga xamante kon moom mooy Sadio et tamit objectif bi mooy gars yi surtout coupe da ca demi-finale ba mën a dem ci coupe du monde balaa tax ñuy viser finale pourquoi pas gagner comme seen mat yi. aywa fan ci weeru mars ba tax na open press simultané maanaam démb ñoom ñaar ñoo amandoo seen open press kii ca Géejawaay kii tamit euh, moom mii di rëg-rëg ak waa Caaro yi gis nga ko ñëw na rek ci li nga xamante kon mooy su ma jàppee mu jàpp du du bëree donc muy loo xamante wax na ko rëg-rëg moom statut de favori ne me gêne pas ñoom ñaar daal ku ci nekkoon yaa ngi daje et puis Siteu mii dafa mel ni am na lu am solo mm-hmm. ndax démb tabax na une maison pour mm-hmm. sa maman xaritam la bu dëddu waaw bu nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo doon ànd matin midi soir. mu gaañoo bi mu gaañoo. Mm. Euh, moom euh, Siteu jël ne. Mm. la nga xam ne moo doon yéene Fodé muy tabaxal yaayam kër. Mm-hmm. moom dina ko ko tabaxal gannaaw. jënd terrain tabax jox ko jënd terrain tabax ko jébal ko yaayam def na lu rafet merci voilà loolu rafet na jërëjëf merci beaucoup euh, Malick Thiandoum ci leeral yooyu le Chérif mën nga taxaw l'observateur yaakaar naa yéen kaay ak la ñu xëyee ñu waxtaanee ak ci commenté bi xam ngeen ne bés